Aí, yéen dem nañ leen toog. waaw nañ déglante rek. toog leen s'il vous plaît. ngir Serigne Bamba. dama ne. léegi léegi léegi taxawal yàgg. journaliste yëpp lañ toog. xaaral ma expliqué rek ñu am solution bu gàtt. Aziz parce que ñun ñëpp bu ñu bëggee nekk organisateur day def. kii bi melu ni noo xamante ni jar na si sécurité ci biir géew bi. melu ni noo xamante ni bu caméraman yi beroo. bu ñëpp toogee ñëpp am image. mais na ñëpp ñëpp toog képp kuy journaliste toogal. ndax fecckat yi. Cheikh Moustapha dafa ñëw. ayca Ndiolé da ngaa wuy sa nawle na ñëpp toog. Paa ma Ndiolé nee na ne ko taxaw dama lay teral. na ñëpp yegg suuf. parce que ñu tey ñu daje fii nga xam ne moo nekk deuxième édition Dekkil Art ki nga xam ne mooy sa xarit mm-hmm. Adi Ndeye Gueye organisé ko bi nga ñëwee gis nga nit ñi niñ la tertoo ñu bàyyi la rek nga nuyoo waaw sant yàlla rek julli ci Seydina Mouhamed di sant fan si nag Sénégal nag mënuñu leen a fay ndey nag sunu nawle la mais sunu xarit la vraiment ñu bokkul lu bari bokku Pikine bokk banlieue bi dellooti bokk suñu nit ñu baax ñi bokk mariage may sa biige la ci jóg diggéen bàyyi jori sa diggéen bàyyi daagu daagu diggéen bàyyi macha allah ñu bëri xaaruñu woon njole ñëw ndax ah. depuis bi mu waxee événement bi hmm. nit ñi dañ naan ñëw mais bi nga ñëwee ñu bëri fu mu ne nii ah, jaaxle nañ ndax gis nga sax ni nga accueillir hmm. ah foog ñu ñëw Ndeye Gueye suñu nawle la te nit ku baax la te nag tubaarkàlla macha allah danoo bokk lu ñu mën ta waa waaw nit ku baax la suñu nawle la yàlla baaxal ko vraiment ñun boo leen ñu gisee ci lu mel rek bu nu ñëwul rek xamal ne euh, fekk ñu fi waaye bu ñu fekkee dañuy wuyu ji suñu nawle yi parce que ku ku xeeb sa nawle gis ku la gën foofu te fonk nawle mm-hmm. waaw noonu la cas bi demee. macha allah waaw. ancien ah, man bàyyi naa fecc bàyyi leen ma <laughs> waaw man bàyyi naa uh-huh. mm-hmm. moom mais àddina noonu la parce que fecc nañ ba pare macha allah dañuy bàyyi xale yi doxal teewul dañuy séq jàmm ak salaam lu waay wax ne sa morom mi ko séq ak sa morom loolu du dëgg ñun ñëpp business mooy nekk kafre ku xewle sa morom wuy ju ko bu la leeree na sax sa kii amoo moom jàmm bu xewle doo fa dem waaw parce que noonu mooy àdduna man du ma def lu ma gëmul bañ nañ ko ba na naan njolee li muy wax ci média bariwul loolu lay bañ waaw. ah yàqante bi yàqante bi ñu moom instant bi moom mënuñu ko bañ. parce que ndegam ñu baax ñi ñi nga xam ne ñooñu gën ndegam ñoom la ñu yàq sàkkam cumaa ñoom Sénégal daal changé na parce que changé bi mooy di nga ànd ak sax sa nawle baa nga ànd ak sa moroom ngeen bokk am loo leen def mu yàkkamtee xuloo ak yow ba wax la ko man xàmmeetuma Sénégal léegi daal lan laa xàmme ku nekk àndal say bokk def sa yaay sa xarit def sa jëkkër sa xarit xarit amatul vraiment daan fecc bu neex réew mu nekk ak jamono ju nekk ak la cay war a xew moom xale yi fecc neex na parce que seen jamono la ñun suñu jamono loolu moo xewoon jamono Ndeye Khady Niang lee moo xewoon jamonoy xale yi lii moo xew loolu dara nekku ci xale yi la tuuti ci li nga xam ne mooy actualité wàllum disque d'or bi. Mhm. Euh, ni mu ne moo di waaw mën naa nekk coono yi baayam la ci jóg diggéen baay jur sa diggéen baay daagu daagu diggéen baay pour a faaleeg diggéen bu nee disque d'or war naa mën a ndax moom baayam rek disque d'or la man li ma bu ma sañoon artiste bu ko dégg ci moom da koy ñaanal mu eggaleeg sagoom nga ne yàlla na ci yàlla ak Sëriñ Bamba def xéwal mu ñëw ak jàmm parce que disque d'or Wally bu ñëwee ñëwalul Wally kese artiste yëpp la ñëwal Sénégal la ko indi ñun ñëpp ñoo ko moom kon ku ko ko yéene rek ñaanal ko mu eggaleeg sagoom mu ñëw ak jàmm. dara nekku ci war naa mën a. mais ñu am benn seetlu ci yow. waaw euh, doon ku siiw yombul ci Sénégal. waaw bu ko Thione Seck waxee siiw du jaame borom. waaw euh, depuis bi nga nekk Ndiolé di sëy ba tey. Mm-hmm. mosoo jël sa ménage exposé ko. Mm-hmm. mais ñu siiw ñi dañuy gis ñoxor njaay rek ñu exposé seen sëy euh, bu tasee ñëpp yëg ko. waaw man nag ragal naa ko exposé. daan naa ko sax def waaye bi ma gisee circulation bi dama ko wàññee sama borom kër dama ko génnee ci sama cadre musique bëggatuma sax mu feeñ bu baax maagi maa waxtaan ak moom fu ma jëm xam na ci dara euh, parce que jur naa moom njaboot yor naa doom ju mag te tubaarkàlla macha allah waaw noonu la demee. mais Ndiolé noo déggee Wally Seck. mën naa mën naa mën naa kii éponge. waaw Adja awul problème Adja. Adja mën naa di la doom ji lay yebal ndey mooy sama menager léegi sama doom. Ah comme màgg na te papaam li muy toog bariwul mu di ko yebal rek di ko jox xalaatam ñuy liggéey noonu la demee maa ngi ñaanal ñépp nag ñu góorgóorlu bu baax mais Sénégal daal li ma gis léegi ku yebu toogal sa jël sa bopp def ko xarit wala nga jël sa dàll wala sa poset nga def ko xarit d'accord ma que nit ku nekk yàkkamtaa yàkkamti nga xamal nit ba wax ko ko d'accord ma waaw maa ngi sant. waaw. ba tey moom mu toog mi ngi liggéey doom jaa ngi mi ngi liggéey ndey lay wax ne indil lal sa yaay mu ma waaw man it maa ngi lijjanti waaw macha allah yal na yàlla def jàmm ak li fi jaar lépp. tey xam naa ne moom fi ne nii moom. nga nekk jigéen tey yàlla. laay laay li ñu gis coow li jamono ji bari na ci kër Aziz Ndiaye te ku nekk xam na am nga relation. ak jaay hmm. tey boo amoon looy wax xale. Aziz euh, Ndiaye dafa wax li euh, nga xam ne moom mooy aawam. tey boo amoon looy wax rek ci Aziz Ndiaye ak ay soxnaam. di ñaanal Aziz Ndiaye di ñaanal njabootam yàlla le leen yàlla defal jàmm man problème mu jàmbur du ma ci dugg. boo gisee ñu naan Ndiolé dafa ragal lu bari duma ciy wax maa ngi ñaanal Aziz di ñaanal aawam di ñaanal ñaareelam yal na leen yàlla may jàmm. ah ñu góorgóorlu te moytu ceewu média baaxul parce que du deñ waaw ceewu média moom du deñ après gars yi da ngeen ñoo yàkkam te a xam nga mënu ma leen a gàtt ndax fi ngeen da ngeen di xëy bind Ndiolé gàtt nañu ah te man samay waay ngeen yal na leen yàlla may jàmm yàlla may ko ñëpp ci barke Sëñ Fall kontaan naa. macha allah ah. kontaan nañ.